Bonjour!

Adama Niang ci boppam dañ ko war a bàyyi dafa war a jàngi xale la dafa am avenir kon waa kon boog Firi Adama Niang Sambour 45 la nekk rëbës. ok gars yi bala ñoo tàmbali vidéo bi li may njëkk a def mooy damay laaj. looy laaj. li may laaj mooy teel a kañ. teel a est-ce que xam ngeen ne kon jamono ji dafa waroon a fekk ñuy wax naan ñaari fan moom moo des pour ñu am suñu président bu bees te ñun waxatuñ wax jooju te loolu mooy li suñ constitution wax au lieu moom aussi bi muy wax mu wax wax ji nga xamante moom mooy intéressé Sénégal yépp mooy date élection yi kañ la mu ne fa ñu ko wax jooju di wax wax ju intéressé wul benn sénégalais kon desaan ñun fu nañ ñun suñ biir tabbi géej suñu xalaat yàqu na suñu moo lëndëm ci xelu sénégalais yi ñëpp di la xaar te dara intéressé leen say kàddu lu dul. ñu dat bi bis bii la ñu jàll ci loolu wax nag modalité yeeg. moom mu ñëw ñu lekk li gën a yitteel sénégalais yi au mu tontu muy wiiri wiiri. wiiri wiiri beeg fàttali bi bàyyeekoo ci directeur général bi yépp yooyu yëpp xamoon nañ ko. en ñun si boppam suñu dat lañ soxla nga wax ñu ko kañ la. ñëw dat ala ñëw dat jox leen nu sanu datoo. waaw. sanu datee. dat wi moo gën wax ji moo gën wax ji de la ngeen fi wax ak la ngeen di waaj a wax ak la ngeen waxoon nag ëpp sanaw dat tekku leen baay ñu aki moo dat bi de du seenaw dat ala ñaw dat ay jox leen nu sanaw dat dat wi noo ko moom sanaw dat ñoo ngi ci jàmm xuloowuñu xeexuñu suñu dar lañ soxla. nee leen sanu dar. <laughs> Paaseen yaa ngi may yóbbaale sax mais quand rek laa dat jar na ko. du ma fi stressé. pourquoi dat doom dafa jar bay woote ay ñett ki ñeenti journaliste naan da ngay waxtaan. yow ki da nga fay gis jar waxtaan. gisuma ko de suñu dar rek lañ soxla. mais mënul nekk. mais pourquoi mënul nekk. mënatul nekk parce que. Euh, yow rek laay déglu. bi conseil constitutionnel une liste provisoire dafa am ay candidats ñu dindi ou sen candidature té du yoon. ki dof pilis la. ah de. <laughs> déjà yow de un posé wu la question bi président la ko posé. yak sa lex yu nga euh, eh eh, eh te sax kii mooy kan ci gars yi tamit. muy Racine Talla. mais père Racine mi tamit lan mooy liggéeyam. li ngay laaj bu arrangé wul. Macky Sall day gaaw dagg la. pour jublu si lan. ngir Macky Sall mënul continuer ak yow ci di la démentir wala dara. maanaam bouclier la daal. bouclier la. mais c'est honte. maanaam léegi kon métier journaliste dañ ko bëgg a def comme équipe nationale di sélectionné nu mu leen neexee. dafa seera sélection rek. bettu ma. parce que. waaw. nañ ko sélectionné ba ngeen seetloo bu baax. kii technique bu wóor lañ ko teg. maanaam. mooy première. kenn ci ñoom. muy Yakham Mbaye. waaw. moom moo ko nommé keneen ki nga xam ni moo fa nekkaat représenté dafa ITV seen directeur général moom Macky Sall ñoo bokk candidat Amadou Ba mooy seen candidat eh, ka fa nekk muy Soxna sa Dramé RTS la fa nekkal RTS moom ko moom moomu ko lu yaakaar naa du laaj li da lañ naan njumanoo sant mun a wele mu des xanaa Seneweb Diallo de moo si tane léegi nag man wax naa ko may posé wu léegi Seneweb moom ci fan laa leen mën a disqualifié. man daal je suis peur daal. non réew mi si boppam moo am lu ko metti Sénégal am na lu ko metti nag. li nga wax mooy dëgg. ok tamit ba tey dama den di leen présenté Serigne Saliou Mbacke borom njurul ku yàgg si ren samay vidéo yàgg ngaa gis ma leen koy présenté muy ko yàlla dénk xam-xam loolu nag kon boog Serigne Saliou Mbacke borom njurul présenté waatal garab gi gars yi a xam njariñ li. quinze maladies lay dindi. muy ndoxam tension perte balance règle douloureuse l'impuissance sexuelle da koy dindi ba mu jeex tàkk tàkk seeram macha allah kon boog gars yi ko déggandoo képp koo xam ne bëgg nga ci garab gi naan borom juróol gaaw nga contacter cabinet bi boo ko defee doo ko ba tax na képp koo xam ne tamit bëgg nga mu seetal la defal la ay ñaan gaawul nga contacter ko ci ñun dañ lay wax lépp loo xam ne weesu na ak li nga xamne yang koy dund ni te xam nga ni li mom mi ngi lay arrivé mo xam metti na mo xam metti wut yang koy dund ni ak li nga xamne ñewagul ma sha allah gaay kon bok ñoko deg ndo Serigne salih bakki borom jurul mo nek non kon bok Serigne salih bakki borom jurul contane nañ ci ni ngay safara jafé jafé askan wi pour ko dor ko se réveil y a de nouveaux dossiers mané prési sénégalais yi suñu dar ci bopam lañ soxla nga wax ñuko kañ la directeur général Racine Talla waxaat na li fi xew yépp ak li indi

ma prêtewaat serment 2 avril 2019 kon bu ñu yegsee 2 avril bii di ñëw 2024 dafay nekk njeexatilu sama mandat ci bopp réew mi loolu de buñ ko waxul sax ñun xam nañ ko li nga ma leeral ne sama yéene ak sama bëgg-bëgg mooy su mandat bi jeexee ñaari fan ci weeru avril 2024 bii sama liggéey si bopp réew mi fa lay yem wallahi président xam nañ ko te sax wiir wiir bi mi ngi a ëpp ma ne nga wax ñu suñu date bi kañ la jàppaguñu date bi sañoo loolu kay xanaa man daal je suis peur daal mais moom tamit bu jàpp date bi kañ la ko fas yéene jàpp tamit foofu ñu toog altine ak kuréel yëpp te ñu doon def toujours dialogue national ñu waxtaanee ko moom kay bul sax sonn ba mu déggee ay toog laa ne jorog lay wooteeti waaye yéen mënu leen bàyyi buñu leen jekkoo rek ngeen di jalo moom kay bi mu fi toogee ba jot na yàlla ji tey kenn xamul ñaata yoon la fi woote jalo yéen Sénégal mën dëkk ci jalo ndax yàlla nga sañ koo wax parce que aujourd'hui c'est le seul dialogue qui peut nous permettre de de dépasser cette situation le temps du dialogue est passé fi mu nekk c'est le temps de l'organisation des élections qui s'impose à tous li wax mooy dëgg. waa de ni ma ko ak ni waxé waxee à tout moment bu waxé né day changer waat candidat pour ñu recommencer waat parrainage bu mu leen bét pourquoi. ndax té yëfi ci boppam yaakaar na ne lu simple la date bi rek lañ soxlu ñun sénégalais yi jarul dialogue. bu ñu défé élection bu paré président bu bees bi bu ñëwé mëna na woote dialogue mais fi mu nekk nii dialogue xajatu fi moom. li nga wax moy dëgg. ok gars ba tay bu ko défé ñu continuer vidéo bi bu ko defee dem waxtaan bi limi muy yaatu yaatu dama ci ségg quatre questions yo xamante ñun ñëpp la amoo importance nañ ko bokk ñu dégloondoo ko benn bi fam bi mo koy poser deuxième bi Diallo troisième bi mëna né man ma koy poser <laughs> ay président lam ci toon ah man damaa xamaa fa ne kii ci réew mi gars ngir yàlla war a suli seetaan leen vidéo yi ba mu jeex parce lii tamit foog ñu waxtaanee ko ci après bu jeexee quoi aja posel yaa ngi wax tamit waxu ay amnistie mën nañ yaakaar ne ki nga xamante ne ñëpp xam nañ ko mooy candidat Diomaye Faye bi nekk prison ndax moom war na mën a bénéficier ci amnistie boobu wala keneen ku mel ni Ousmane Sonko waaw loolu xam nga bu ñuy wax amnistie dana am amnistie moy dañuy fatali fi xewon vérité mo jitu amnistie. li nga wax moy deug faté sax xeyna du faté waye dal dañuy mel lolu loolu mosuloon am. lolu lañ tuddé le pardon. kan mo pardonné kan. ah. askanu Sénégal mo bal kan. mom ci bopam mo koy woyé pardon. kan mo togn ñi japp ñëpp jugé ñu ci kenn. lolu deug la. donc amnistie bobu bu né c'est une loi de pardon dañ koy laaj kan ngay pardonné kan mo togn lolu aussi question la dé Diomaye président dina bokk ci dialogue bi ngay woote. man daal dinaa recevoir candidat yëpp bu yàlla defee balaa booba ñoom bu amee liberté xëy moom mooy décider ne dina ñëw wala du ñëw. ma ne boo seen mu ñëw àcc jàll bu ko defee mën ngaa poser deuxième question bi yow la ñuy déglu. kon ñi gàddaay war nañ mën a ñibbisi am kenn si ñoom ku ñibbisi ñu jàpp ko tey daanaka tribunal greffier yi danoo banque seen yoxo euh, loolu tamit mel ni luy mën a xajamal sa woote jàmm bi nga woote foofu est-ce que amul euh, luy jiwarloo tuuti entre yow sa mbëbët ak jàpp yi nga xam te ni ñu ngi koy nemmeeku. waaw xam nga yaakaar naa ne ñu ñu ñu dawoon génn bu fekkee dafa amoon mandat bu ñu leen def wala am na lu ñu leen toppoon la kuliyaaleen bu ñu ñëwee faaw ñu jëlaat leen ñu ñëw wuy si yoon ba pare. mais c'est honte. am na si ay témoignages aussi si condition de détention yi ñi naan dóor nañ ma ñi naan def na ma nangam loolu tam ndax jotul ñu def si ay gëstu. pour xool si an anam la ñuy jàppee si yan anam la ñuy téewee nit ñi ak si yan anam la leen di dence ministre de la justice Garde des Sceaux def na conférence de presse barki démb. tontu na lu yaatu yaatu ci mbir moomu ci ñëwaat. aha ba ñu ñëwaat ndaxte question bi moom moo intéressé Sénégal yëpp ndaxte gis nañ saa yu manifestation amee. gis nañ ni ñuy brutaliser askan wi di leen torturer. président li foog nga leeral ko tamit. waaye dama jàpp ne ku ñuy dóor kaso wala di la torturer doo xaar ba génn ngay doog a wax dañ ma doon def lii dañ ma doon def laa te kenn mosu la dégg nga wax ko. da doomu adama doo waroo nangu ñu lay teg ah, loo xam du dëgg du yoon rawatina wàllu torture Sénégal torture amu fi. Sénégal torture amu fi dana ma jaaxal lool suñu police suñuy agent pénitentiaire niñ leen jàngalee suñuy policier gendarme ñu ne dañuy torturer ay citoyen accusation nag taxul ñu ne la ñu accuser am waaye bu fekkee da nga nekk kaso te yow kaso bi ñëpp mën nga wax ak ku nekk ñu ngi lay seet si say avocat ngi ñëw te kenn mosul dégg na yow dañ la torturer kon léegi comment subitement on peut dire dañuy torturer nit ñu dans les prisons loolu man dafa tey sama xel te mënuma ko nangu ludul ñu indi preuve bu koy wone mais tamit tamit tamit mais c'est honte. d'accord d'accord anyway comme nee nga gisoo toroxal gi ñuy toroxal askan wi ak brutalisé bi ñu leen dëkkee def ak durant vidéo yi ci fi jot viral yëpp nee nga gisoo ci benn donc kon léegi ñu ngi lay bàyyi nga wax ban image nga nar a bàyyi Sénégal yow nee nañu saabu du fóot boppam Olof Njaay moo ko wax kon man du ma mën a wax ci image bu ma bëgg a bàyyi Sénégalais yi Sénégalais yi ñoom ñooy xool diiru fukki at ñaar yi ma fi yàlla dënk réew mi lan laa leen fi bàyyil kon boo gars yi ñoo ko déggandoo nee na saabu du fóot boppam diiran fukki at ñaar yi fi nekk yëpp mënul wax ban image la fi bàyyi mu ne day bàyyi yéen sénégalais ci bopp ngeen wax ko ban image la fi bàyyi s'il vous plaît dans les commentaires wax leen ko ban image la fi bàyyi pour mu xam ko moom na saf sàpp ci suuf